سماه سلطان السلاطين وما سمى من بعد التيجان سلطان لهم فيه بين العالميات وفي كل داع للحقائق وما حاجتي إلا ارتقاء وإحسان وكان الصفا يرضيه قيد حياته ويرضيه إخلاص ويرضي رضوان يراقب أعمال الورى بحدودها وينصحهم إن جاوزوا الحد أو شاء إلا بظلك عيشه ولا طالب إلا إلى الحق يقظه asalaamualeykum ah dafa mel na bu ñu yeboo déglu rekk ñu sànni ci ay baat yal na yàlla def jàmm ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gi yal na ko fekkee ni gën di déwén te mu rafet tabarkalla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa guddi gi nag moo ko moom moo tax nu daje fi ñun ñëpp njabootam lañu tabarkàlla yenn yàlla tas nu ci barkeem yenn yàlla tëbb nu ci leeram tabarkàlla ñi fi daje ñëpp ay bokk lañu ak i sang ak i kilifa sangi diine sangi daara ak kilifa yi ami réew mi ak bokk yeeg xarit yeeg ak sëti daayira bi tabarkàlla ñëpp ngi fi tabarkal la ngir yàlla ak yonent bi yal na yàgg mu mel ni kon nag euh, wax moom xaddul kalaami ma afaad waaw wax moom bu jariñul ñu bàyyi ko waaye bu jariñee ñu wax ko du dëgg mu mel na eh, jamono dafa yàqoo fépp kon nag foog ñu dégg déglu yàlla mu wax foog ñu déglu yonent bi mu wax waaw lu ko may rek àdduna tukki waaw ndax itam euh, fi mu tàmbalee la tàmbalee ndax dafa wax ni lépp lu sunu bët tegu ak lu mu teguwul nee na ndonoom la te nag yomb naa dégg lu mantiq wàcc wàcc di ko nag ndax ku dul dee yaay doon lépp waaw ku dul dee yaay doon lépp yaay ñëpp waaye baaxam moo tax mu boole ñu ci la tabarkalla tabarkalla ah mu mel ni itam nag kenn du nax sa bopp waaw kenn du nax sa bopp ndax yonent bi lu nekk daj na ko. soo ko mënal nit ñi dara lu nekk daj na ko lu nekk daj na ko ci kaw suuf lu nekk daj na ko mu mel na kon bu jamono melee nii rekk nu déglu ko te déglu borom bi itam tabarkalla tabarkalla moom nag nee na moo nu indi ci kaw suuf nee na pour ñu euh, euh, tabaxal ko dund te it yéwénalal ko penc loolu la wax xam naa suñu ko déggee mu baax suñu ko déggul nag àdduna bu tukki lay doon <coughs> bu ko defee ci biir loolu mu mel na la mu ca daj nit dootu ko daj ndax dafa am yu mu bàyyi gannaaw yoo xam ni yooye la waroon donn te yàlla ni ko dootu ko dootoo ko donn ndax baaxul waaw fi ma la jëmee rek nga jëm waaw waaye léeg mu dem ba mu metti su mettee ba metti ay bokkam dañu koy sonal dañu koy euh, fexeel euh, te it borom bi euh, xam nga ni mu demee moom it léeg dafa seetaan waaw li Hadj Malick daan wax ni loo ne yàlla du ko seetaan seetaan na lu ko yées loolu moo nekk su ko defee mu mel na sunu yeboo di ko déglu waaw te di déglu itam ki nga xam ni moo koy jàngal te mooy yàlla waaw boobu nag ah léeg-léeg mel na déggunu ko waaw léeg mu mel ni déggunu ko ndax ni nuy doxale moo tax léeg mu mel na déggunu ko ndax ni nuy doxale moo tax waaw lu mat a bàyyi xel la parce que àdduna dafa tas ku defe ni àdduna tasul danga nga dof waaw te loolu nag neexu ko tas àdduna ba noppi di ko bàkkoo neexu ko xamuloo ni waaw boo tasee àdduna da ngay taxaw ci kanamam ni ko tas na àdduna waaw mu xam fu muy jaar ak yow waaye tas àdduna ba noppi di bàkku kooku nanguwu ko mukk nanguwu ko tabarkal mukk mukk mukk ñett la bàyyi gannaaw waaw ñett la bàyyi gannaaw tabarruj al jahiliya xamiyatul jahiliya ak naxwatul jaahiliya yi ñett la bàyyi gannaaw waaw yàlla ñu ko dootoo ci dellu waaw te mbokkam yi nag tànk delluwul ci loolu du ñu jubóog moom du ñu jubóog moom seetal loolu lu ko gën a metti mbokk yu am doole ñaw làmmiñ xam fuñ lay jaar di bëgg nga jubóog ñoom ci jubadi bëgg nga jubóog ñoom ci jubati waaw te da ngay sonn nit la xamuloon yoon tamit du yàlla nit la dafay sonn léeg-léeg mu sonn ba xolam di xalaat tuuti rek mu yolofal di jéem a yolomal dara waaye bu ko defee rek buur bi dara ci kaw du ko nangu moo tax ah nit dafay choisir nag waaw nit dafay choisir loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk xamiyatal jahiliya ah kooku borom bi nanguwul ku ca dellu te mooy li sunu maam yi daan def di tiitaru di sol ay caq di woote di tagg seen bopp di amee ay jaas yi ju ngeen xamul yëfi daf waaw yooyu ku xas jaayante ak yonent bi yàlla nee na dootuloo ci dellu wax dëgg yàlla am na mbubb yoo xam ne sol am na caq yoo xam ne sol am na tiitaru yoo xam ne def parce que xamiyatul jahiliya la nangu waaw loolu rek la wala an naqwal jahiliya boobu itam nanguwu ko waaw tabarujal jahiliya nanguwu ko itam pour jigéen waaw loolu mooy li ci ne il faut que ñu ci xel parce que loolu yëpp it du tee ñun ñu ngi def loo xam ni échec gu xeet bi la waaye lépp loo xam ne échec gu xeet bi la boo yeboo jàpp ni ndamu borom bi la waaw lépp loo xam ni échec gu xeet bi la te xeet bi échec yu du jeex diine yi dañuy def échec tariqa yi dañuy def échec politique dafay def échec aada dafay def échec waaye li gën bu ñu defee échec ñu am honnêteté taxaw ci kan mu yàlla ni ko def nañu échec waaye ndam li yaa moom waaye def échec te fu la neex nga taxaw def discours ni maa kenn ne loolu du dëgg loolu mënul nekk moo tax mu ni yonent bi ay ca da ngay choisir ànd ak man wala nga choisir ànd ak say bokk bàyyi ma tout tranquillement loolu la ko wax parce que nag lenn li mënul nekk waaw parce que yonent bi dafay sonn ndax mag ñépp a ko geddoon te dañuy ñaw lam te ñoo moom a bokk te dañ koy ber bu beroo bu gan ñëwee ni kële kan ñu ne ko benn dof la te yonent bi la wax yooyu du ko mën a supporter ba dafay jékki-jékki du ko wax ci làmmiñam mais dafay xalaat ci xolam ni téema woyofal rekk jéem négocier ak ñom ci xolam la koy wax de ah bu ko défé borom bi tontu ko mom ci kat ni ko rek wa law kama kafar waaw li bëgg moy nga nekk yéfer comme ñom à toi maintenant de choisir jeex ak la nga ci ma et puis c'est tout ah moy li ci nek bu ko defé nak kep ku teqaliko ak hamiyatul jahiliya ak tabarrujal jahiliya ak an naxwatul jahiliya dafa am no wara mel ndax ñett nga wàcc wara andate ak ñett ñett yi nga wara àndal moy al izzatu lillah al izzatu lirrasul al izzatu lilmu'minin muminin waaye bëgg teg tànk fii teg tànk fële du sotti kooku du sotti mënul nekk waaw mënul nekk te lu mënul nekk mënul nekk te yonent bi dafay sonn te itam ñi jëkkoon noonu dañu saay-saay te dañu bare pexe yàlla di ko wax ni ko duma leen tere seen pexe mukk ndax kon dangay nasax waaw duma leen tere seen pexe mukk ndax kon da ngay nasax dama leen di dooleel may leen fu ñu jaar di fexe te mu ni ko seen pexe buddi na buddi na montagne seen pexe buddi na montagne te mënuloo fexe ba duma leen bàyyi ñu fexe waaye ñoom it mënuñoo fexe ba duñu ma bàyyi ma protéger la kooku loolu rek la jeex na bu ko defee nag loolu mooy luy alquran leer leer la yonent bi leer la asamaan leer la xamiyal jahiliya lëndëm la naxwal jahiliya lëndëm la du dëgg tabarujal jahiliya lëndëm la kenn du fekke jamono leer nag di dellu ci jamono lëndëm loolu mënul nekk te caaxaan nag baaxul fi mu ne àdduna bi yëpp tas àdduna ak lu la nit mën a wax échec yaa ngi tegloo dafa suñu yéene nangu nit échec am na loolu kenn xamul lan la kenn xamu ko loolu moo tax su fekkee bien sûr bien sûr dina di dem ba xam bopam dina di dem ba xam bopam waaye lele mu dem dem ba salit waaye borom biit ay ñaar ñaari kaddu rek la koy wax te itam dafa am lay yu kenn mënul dello li Jabrail waxoon fa lillahi al-hujjatul baaliga lol la yalla wax waaw l'argument majeur appartient au ciel mon kenn amu ci pexe yàlla bu waxee ba noppi kenn mënu ko yëg kenn mënu ko yëg waaw moo taxit nit ñeeg seen échec ak euh, euh, système système yéeg tarixa yéeg diine yéeg yépp dañuy def échec ci ay secteur yoo xam ni mënuñu ca dara waaye li ci bon def ko ba noppi di waaraate defe ni yow yaa ya waay loolu baaxul loolu baaxul loolu kenn du ko def ah loolu kenn du ko def parce que boo amee échec te système nga da koy nangu boo amee amee échec te tariqa nga da nga koy nangu boo amee échec te diine nga da koy nangu boo ko nangoo taxaw ci kanamu borom bi nga dal di gis ni muy woyofe ci moom ndax da fay delu ci walidhalika khalaqam fofu lay nango échec yi nga jox ko namam lu mu man ci woyofal mu def ko waye def échec ba nopi taxaw fi di rëy gémmi loolu baxul loolu baxul kenn du ko def ah su ko defé nak mu wax ko yonent bi waaw wadduu law kama kafaru li ñu bëgg mooy nga nekk yëfër comme ñoom yow nag yaay seet loolu la wax yonent bi te looloo jàddu nag parce que yàlla yàlla la yonent bi yonent bi la waaw loolu moo nekk wala mu ni ko wattu law tuuti hin fa yu di noonu seetal lu mel noonu te yooyu yëpp dafa dellu ci ñeenti junni at nga bëgg kii leer bu bees ñëw nga ni ko par force nga comporté comme ne nit ñi amoon ñeenti junni at tey noonu lañu daan comporté loolu mënul ne ma comme grand boubou yi ñuy sol bopp ñooñu loolu lañ daan sol ak baxa yeeg di létt bopp yeeg yooyu la nit ñi daan def booba mat na ñeenti junni at léegi ñu bëgg yonent bi def ko pour jubóog ñoom yàlla ni ko doog a def waaw parce que loolu passé na dangay ngay seet lu dëppoo ak leer nga def ko mais échec yi il faut que ñu tudd ko échec yi il ñu tudd ko waaye am échec ba noppi ah, dara jaru ko am échec ba noppi taxaw di rëy gémmiñ di rëy làmmiñ ku baaxul waaw moo tax yonent bi loolu la topp sonn na cee sonn sonn sonn waaye bu ko jàddee rek àdduna tukki parce que moom rek a desoon comme yaakaar waaw te xam nga yàlla ku sévère la yàlla ku sévère la daf koy wax ni ko waxal nit ñi ni leen du yow rek laa am comme yonent wax na ko ko wax na ko ko ni ko waxal nit ñi ni leen du yow rek laa am comme yonent boo leen ko waxul dinañ la sosal parce que ñi fi jariñ ñépp nit ñi sosal na leen waaw ni ko nit sos rek la man amul kenn ku fi jar te nit ñi sosaluñ la yow nag dindil sa responsabilité bu ko defee bu ñu la sosalee bu ma leen dee punir du ma la ci boole waaye boo dindiwul sa responsabilité ba ñu sosal la bu ma leen dee punir boole la ci kon ko loolu rek la te ñun ñu ngi toog fii naan wal habibu alladi turja shafaatu ah turja shafaatu c'est vrai mais moom itam na def liñ ko wax na def liñ ko wax moo gën loolu lañ ko toppe mu sonn ah dëgg la jox nañ ko walla jox nañ ko ni ngeen di tuddee quota quota entre guillemets pour ñu mu mën a yóbbu ci kër yàlla mu yóbbu leen ci waaw wante li yàlla giñ li yàlla giñ wax ni jahannam dana fees yàlla moo giñ ni jahannama dana fees la am la anna jahannam min al jinnati wan naasi ajmain loolu mooy li nekk loolu yonent bi mënu ko supporter parce que jahannam ni mu rëye ak ni mu xóote borom bi ni dana ko feesal ak i nit ak li nit gën a ragal te mooy njuuma njuuma yëg nit ñiy dëkkaale ci jahannam te njuuma boo ko gisee fii jommi foofa yàgg ñoomay bokkaañ waaw seetal loolu yàgg ñoomay bokkaañ bi ñu di leen toggal laaxu xam-xam illa min darian xam-xam la ñu di leen toggal laaxu caaxaanu xom xam foofu café amu fa waaye goudron am na fa ñu jox la goudron nga naan kooku loolu rekk la te giñ na ko nee dina fees del te kenn xamul yaatuwaay bi te kenn xamul xóotaay bi

ku demul mottali ci sa culture foofa ah adduna tukki kooku loolu rekk la mu mel na kon nag kooku du caaxaan yàlla bu waatee wax ni dinaa feesal safara te safara yaatuwaay ba ëpp na xóotaay ba ëpp na ah kon ñan ñooy dem kër yàlla pour mottali ci seen culture foofu parce que nit ñi dañu defe ni da ngay dem foofu pour noos da nga fay dem pour mët pour mët demuloo fa pour noos da nga fay dem pour mët mëtadi gi ci kaw suuf foofu lay deñe bi yàlla waxee collaborateur bi ni leen nit lay recevoir fii ñu ni ko mukk parce que gis nga ni ñu polluer suuf si kon bu ñu ñëwee fii dañ koy polluer mu xam ni xamuñu xereñam waaw nit dana dem kër yàlla te dukoman, ko pas du ko mën lu tax parce que dara du génn ci moom lu mu lekk dafa soppeeku beneen dund bu ko dundal waaye du ko génneeti bu naanee daf ko soppali beneen dund wante du ko génneeti seetal kon parce que li nga li nga naan doo ko génn dafa soppeeku nekk dund bu la kenn mënul nettali parce que nit ñi bu ñu sangoo ci kawsar ba noppi jeex na bu ñu xasee dugg ci kër yàlla kenn dootul am fitna waaw du ci lekk du ci naan wax na ko ci alquran parce que tudd na raxiq ndax bi ñu weddee ni eh, nit du dem ca kër yàlla te du daf koy polluer mu won leen lu ko weddi mooy dafa jël benn fleur dindi ca lu ñuy tuddee raxiq mi ngi ci alquran te alquran lu mu wax dëgg la mu dindi ci lu ñuy tuddee raxiq bind yemb yemb lekk raxiq ba jonkan ko te ku jonkan ñu ni sànni leen dafa salte mais yemb moom bu jonkanee ñépp xëccoo ko pour ndékkee ko seetal loolu ah, pour woon la ni wax na ko nee na raxiq moo tax du ngeen génne ñam yi ngeen lekk ci suma kër seetal loolu nee na seen lépp raxiq laa cay def seen mayonnaise ak euh, seen confiture ak seen vin rouge ak yépp raxiq laa ciy def moo tax dootul génn te dootul génn wax na ni bouchon ya ñuy butéel yi sax ku ci sànni woon benn bouchon ci àdduna kenn dootul xuloog moroom waaw ku gis sa moroom rek danga koy fóon pour wax la ni këram neex na waaye tam ca yombul waaw te am na yeneen yoo xam ni sax moo tax mag ñi di ko bëgg mooy culture ba ndax sëñ Babacar daan na wax ni culture asaman, ëppee na doole culture suuf ni wurusu jama ëppee doole xandeer te fi lu ne gis nañ ko ci culture waaye culture bi fitna rek la culture kaw suuf fitna rek la te alif ba rek la passé wu ko waaye dafay ànd ak wut loo añee dafay ànd ak wut loo reere dafay ànd ak wut loo naan dafay ànd ak wut loo dafa ànd ak dafa ànd ak xeex dafa ànd ak ba bañante yooyu yëpp a ngi ci biir wante kër yàlla yooyu yëpp amu fa moo tax nga xam ni ña fay dem du ñu bare ña fay dem du ñu bare mais jahannam ña fay dem daa ñu bare parce que daanaka ñëpp soo watuwul ah ba tax na lu bàyyi ci xel rek yonent bi jàmbaar la parce que léeg mu wax Jabrail ni ko naka ci pexe mu ni ko ah man kay je suis coincé waaw ni ko ba mu waxee fa lillahi alxujjatul baaliga la summi sama chapeau waaw waaye yow nag am na lu mu wax ci yow nee na am nga rëfa ci njaboot yi am nga raxma ci njaboot yi kon nag del sukkandiku ci raafa di sukkandiku ci raxma tey leewaayu rek waaw bañ a bàyyi ilaa yawmi liqa ni ko te say njaboot a ngi ñëw moo di awliyaaw yi ak aqaab yi ñoom itam suñu ñëwee comme ci yow lañuy ñuy nga wax leen ñu leewaayu rek waaw bu ko defee du ñàkk nag buur bi di bàyyi tuuti tuuti waaye waat na ba noppi wa lidalika xalaqahum ولذلك خلقهم جتوتيول واو وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين yal na nu ci yàlla musal su ko defee nit nga wax ko mooy kan baax na moo tax Jabrail di ko wax ni ko li nga ci man mënuma ko waaw ndax raufur rahim nga lil muminin loolu moo tax te itam gis nga bu ñaareel bi mi ngi lay euh, jéem a ndeysaan woyofalal yëf yi ndax di justifier position mais kan moo jaral yet yàlla muy justifier position ku dul yonent bi wa laqad dara'naa li jahannam kathiran min al jinni xam nga loolu yonent bi dafay tiit وتخ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها نيت لا ني ньо خامني سين خول دغول دون سين بت غيسول حقيقه سين نوب اجيول تي اسمان لي تخ ما دي لين يوبو جهنم وا وا هب تخول مباي وا دي ليوايو رك دي ليوايو رك با Ah, njabootam yi ñëw gannaawam ñoom it di leewaayu rek waaw aqtaab yeeg awliyaa yeeg asxaabul waqt ñëpp di leewaayu rek waaw ndax yàlla di woyofal parce que nit ñi dañu mën tooñ te léeg-léeg ñu àgg ci gàjj yàlla dañ koy gàjj gàjj piir waaw dañ koy gàjj xam nga lool nag du jur jàmm bu mel ni kon nag ndax sa bopp baaxul nañu nangu échec yi ñu def ndax yàlla moo wax ni nañ ko développer planète Terre nañ ci tabax dund nañ ci yéwénal pinc te bu ñu gaañ gàncax bu ñu gaañ ngirt te nañ ko seetal njanaaw yi te nañ ko seetal ñiy duggat loolu la wax nañ ko defal développement intégré waaw échec bu ëpp bi nu def nun xeetu doomu aadama kenn musuko gis parce que le mu teurelon tëraloon ñu ci motax tax ñepp ay salarié lañu ah, geraw yi du jeex kenn ku ne ci sa salaire nga compté ta salaire warul won am kenn ku ne ya waroon di fay sa bop waaw ah, looloo tax ndar ba fonctionnaire yi dajé wax Maodo ni ko sunu salaire yi dafa barkeelul ñaanal ñu ci mu ne ah du barkeel parce que da ngeen ko jàppi wërsëgu yàlla te wërsëgu yàlla ëpp na salaire mais salaire système a ko indi système a indi te yàlla dafay duufal système parce que yàlla du du xareek lompoñ dina jàpp système di ko dundal ay siècle di ko beewloo sa na sadri jour min haytu la ba système bi dafay xëy defe ni moom defar àdduna bi moo ko moom te yonent bi nee na nu mujj ñëw ci àdduna bi ne ñëpp xëy si nañu ñëpp nee na nu toog ba tàkku tàkkusaan ñu soog a teer si coow lu ne kuru te kooku jagul kooku baaxul bu ko defee nag yi ñuy def yëpp dafa dellu rek ci yu kenn xamul yu jëkk ya waaw ci époque des ténèbres yi la dellu kon nag nun nooy xam suñu bopp bañ gémmiñ taxaw ci kanamam bon ko ni ko def nañu échec waaye yow am nga ndam ndax wa li dalika xalaqoom yaa ko wax waaw loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk ah su ko defee nag Maodo dafay wax ni ah li nit ñi wax ci yonent bi yëpp wax naa ko te ku jàng mim ya xam ni loolu moo wax moo nekk ku jàng nuun ya xam ni loolu moo wax moo nekk waaye nee na lenn rek laa ci gëm nag gëm gu wér mooy Muhammad Abdallahi ku jur ak Amina jeex na nee na boo bëggee passé loolu ma werante koog yow te loolu mooy jaadu xamaloo ni yi ci des yëpp noo ko ci teg mais soxlawu ko parce que jant bi kenn du ko tëggal tama soxlawu ko mais yépp nag nuy neexal defe ni yonent bi lanuy ñuy tagg ak lu ne fekk suñu bakkan la ñu topp rek waaw te li gën a metti nekk ci xamiyatal jahiliya te tudde ko yàlla ma nga tudde ko yonent bi kooku doxul kooku doxul moo tax Maodo wax ni fii ci senegal diine du fi daan aada mukk aada rek mooy daan diine ji ñëpp ay tricher ñëpp ay waaw koo gis mu taxaw fi di wax ma nga ca xamiyatal jahiliya koo gis mu solu ba génn ma nga ca tabarutal jahiliya koo gis muy dem xew ma nga ca naxwatul jahiliya ba noppi ni ni du ko reconnaître kooku mënul nekk waaw nanu woon yàlla ni ko rek am na nu échec yaa nu yónni ci kaw suuf def na nu échec waaw bu ko defee rek moom mu am ndam wa lidalika xalaqahum dal di koy woyofal dal di koy woyofal ah waaye nekk ca gannaaw ba noppi bëgg ni rekk yow yaa fi tiitaru bi mais li nit ñiy tiitaru loolu dafa ëpp ah. ah loolu baaxul ndax yonent bi li ko yàlla won bu bëggee tiitaru mu ni ko du noonu bu bëggee dëggal mbokkam yi mu ni ko du noonu léegi da ngay choisir ou bien nga choisir sa mbokk yi ou bien nga choisir ma te loolu moo fi nekk ba léegi moo fi nekk ba léegi ku la wax leneen wax na la lu amul te ñu ngi bëgg a rey nit ñi booleeg coow li nag booleeg coow li booleeg coow li booleeg coow li taxasumu ahli naar booleeg coow li booleeg coow li taxasumu ahli naar waa safara yonent bi nee na lekk gu naqadi ak naan gu naqadi nee na moo gën a euh, woyof ca saxar waaye nee na xuloo ba mooy musiba mi ñi dëkk safara dañuy xulu di xulu yaa lekk sama lekk gi yaa ma tànc yaa yaa ma def sa poqtaan bi yaa ma mbëkk yonent bi ne moo fi yées seen gémmiñ du selaw mukk ndax xuloo rekk wattu ma wattul fii moo tax dafa mujj séddale mag ñi mag mu ne mu yebal ko ci benn quartier ñi mu yebal leen géejawaay ñi mu yebal leen parcel Assainies ñi mu yebal leen Pikine pour ñu booloo ak waa dëkk yi fexe ba taxasum ahli naar bañ a am ci kaw suuf ñu bañ ko tàmbalee fii ñu bañ ko tàmbalee fii te mag ña def nañu seen warugar ba xuloo mujj na amatul ci quartier yi te jëkk loolu kenn du dégg ci quartier yi ndax xuloo yaa fi tuur bolit euh, euh, mbalit mi yaa fi tuur petit mi yaa ma sànni euh, xaw ma yuñ koy wax yaa ma jabar yaa ma def lii yaa ma xool yaa dóor sama doom yaa dóor sama rek taxasum alin naar ñu tàmbalee ko ci kaw suuf kooku du dem baaxul kooku baaxul xuloo rekk waa safara dañuy xuloo rekk xuloo rekk yaa lekk sama desitu ñam yow yaa ma buux yaa toog sama place wattul rek loolu baaxul baaxul de Lolak nag buñ ko tàmbalee ci kaw suuf te tàmbali nañ ko ci kaw suuf kenn na xulu taxasuma li naar ah loolu kenn mësu ko gis bu ko defee yonent bi nag wàcc na waseet moom ba tey gestuwul bu bëggee gestu rek borom bi ni ko boo gestoo rek ñàkk waaw am na loo passé na da ngay jéggi sa rek continuer gannaaw du am mukk dañ koy sonal am na groupe bu xëy rekk ni ko boo xaree weer wi ñu ànd ak yow xare weer koo xam ni bala ngaa wuyu yàlla ñu xaral la weer wi mais xanaa loolu ci la ndof yépp ah inshiqaqul qamar loolu kenn mësu ko dégg ni ko rekk boo xare weer wi ñu ànd ak yow loolu tax bur bi ni ko yow xamuloo ñi ngay waxal seen maam yi ya weddi woon yonentu yu jëkk yeen ya, lu ne woon naa leen ko waaye lu ma leen rek ñu ni sixru mustamir la seetal ni ko ñoom dañ ko jar du barki démb seen chef bi dee fii ma teqali ruuxam ak yaramam ruux ga mu yaram yu nekk ci seen loxo xamuñu nañ koy def ba ñu dem suul ko te moom rek li ñu bëggoon waaw loolu ku la ka teg nga ne na la woon beneen preuve ban preuve moo gën a rëy boobu mënu ko nag yi passé affaire xar baax yi nekkatul loolu passé na yonent yu jëkk yaa ko daan am mais yow ci yoonu nit lañ lay jaarale moo soog a xam nag nit ki moo amal affaire fowul parce que yàlla du fo nee na bu ma doon foo nit du am waaw ne ndax pom yàlla kenn waru ko seetaan nee bu ma doon foo mbindeef du am ndax pom yàlla kenn waru ko seetaan waaw looloo tax ci dëgg dëgg la nekk looloo tax yonent bi mujj rekk d'accord ak moom di wàññi di wàññi ba mu wóor ko ni digganteem ak bokkam yi dog na c'est fini waaw nag mu soog a nag di ko teete On connaît Nico, philosophie du mal à c'est la meilleure des philosophies xikmatun baaliga li amul kenen ku la mën jàngal lu ëpp loolu te yonent bi dafa namp al-lugha al ñi ci des namp al-lugha al-arabiyya te bu waxee ñoom ñu ko te du tiitaru waaye dem na ba ni leen du kese kese ah, te du tiitaru dem na ba ni leen du kese kese parce que bu waxee rek ñoom ñëpp ñu daanu te ñoo nàmpandoo al luga al arabiya te nag sikki nekkul ci ni al luga al arabiya hiya sayyidatu lugat la chàkk ndax luga bu ko borom bi préparé ñeenti junni at caaxaan taxu xam na ni am na ku mu war waxal te kooka la muy wax ak moom c'est la meilleure des philosophies xikmatun baliga waaw loolu moo nekk boo defee mu nekk ci loolu ba benn bëccëg mu woon ko ni ko léegi dama bëgg a dama bëgg a ce courage physique De bëgg tester ce courage physique ndax ce courage moral amatul limite mais dès na ce courage physique moom lay testé. fi mu nekk dama bëgg ñi wetti sama dëkk nga yar leen ak sa loxo te dinaa leen bàyyeeg seen katan. dinaa leen bàyyeeg seen juddu dinaa leen bàyyeeg seen caacaay dinaa leen bàyyeeg seen tiito waaye ci sa loxo laay jaarale nga yar leen kon di nga am fitna bu ma reyal xaleel ndax dundam lu sacré la bu ma reyal jigéen ndax dundam lu sacré la bu ma reyal borom bëjjaaw ndax dundam lu sacré la bu ma taalal kër ndax lâcheté bu ma taalal tool ndax musiba la bul jëkk a tooñ ndax gor du tooñ bu ko jëndee alal ndax benn